bis ni ki tey. génn nañ ci gëm sa bopp bokkatuñ ci. mouvement citoyen pour le développement ñoo xamle li ni mel seen génn ci coalition bi di gëm sa bopp lañu ñu siwal ci samedi bi gannaaw bi ñu ñaawloo doxalinu kii du njiitu coalition bi. gëdd la ñu joxatul cër la ñu joxatul ci local yi amuñu un petit merci amuñu ko ci Bougane gisatuñu suñu bopp daal moo waral ñu génn. boo seetloo fii ci Parcelles Assainies bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk a gëm sa bopp fii ci Parcelles Assainies mais dañoo dem ba ci biir. Euh, ci local yi ñu génn ñu gis ay changement yoo xam ne dafa am parce que ñun li ñu foogoon te gëmoon ko moo doon euh, sunu sunu sunu coordinatrice moom la ñuy porter comme candidate fii ci Parcelles Assainies mais dañoo dem ba ci biir mu am ay changement yu am ñu indil ñu keneen koo xamante ni moom la ñu bëgg a jël teg ko sunu kaw. nit kooku nag lépp lu ñu amoon comme les ñu amoon ko ci Bougane Gueye Dany nit kooku bi mu ñëwee amatuñu ko. bu ñu wooyee buggaan téléphone du nu wuyu suñ ko waxee mu utal ñu rendez-vous ñu ñëw wax ak moom waxal xamal ko ci li nu passé li nu jëm ak fi nu toll du ñu jox rendez-vous te di jox ñëpp rendez lu dul dem moom foog ñu utal ko fu mu yem parce que nit booy ànd ak moom te faalewu la gëmu la respecté wu la joxu la sa gëdd. yaakaar naa di nga toll foo xam ne boo xamul li ngay jar et lu ñu la jëndee da koy jar. waral ñu fa yéene wéyal seen bopp ngir mottali yenn ci ay yéene. yooyu am sa gox ba ñu nekk. bu ñu continuer ànd ak moom lu gën a pire local yi moo ñuy dal ci législative li ñu fas yéene daal mooy liggéeyal suñu bopp comme ni ko sama frère waxee liggéeyal suñu bopp tàllal sunu loxo ñëpp liggéeyal suñu bopp. am na yu bëri nag fóotum biir néeg la dañ ciy waxtaan waxtaan guñ ci moo tax mënaguñu prononcé wu bu baax a baax ci législative bi mais daal ku nekk xam na ni macha allah tàmmkatu eh, eh, eh, dem xare bu xare jotee day dem xare. gëm sa bopp page la boo xamante ni dañ ko tourné pour ñun. ubbiwaat beneen page pour bind suñu propre histoire ak sunu mouvement bi nga xam ne moom lañ yor muy mouvement citoyen pour le développement. mouvement citoyen pour le développement ëmb li mu takku ci ay membre xam leen ni dakkul jokkoo ak képp wala bépp kuréel bu nam namm jëmmal Parcelles Assainies. loolu moo tax nag ñun ñu jël suñu décision daal ne vraiment comme dañuy ànd ak ay nit te ñi ñuy àndal ñoom yëguñu ñu faalewuñu toppatoowuñu donc ñun li ñu war rek mooy ñu reculer pour mieux sauter.